yéen ñëpp ngeen am solidarité ànd bokk ndey am na bokk bàyyi liggéey loolu rek moo waral justifier suñu présence fii mais lépp alhamdulilahi rabbil alamin jaar na yoon démb rek la bajaan tëggul ki war a tëgg tey mu ngi ci mooy euh, waa Jandeer ñu ngi ci euh, yal na yàlla defal ko jàmm ba li muy wut mu raw njortam donc yàlla na fi yàlla def jàmm loolu rek mooy justifier suñu présence fii ñu ne cabinet ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañuy defar làmb na dox rek Pape Abdou Fall lan ngay wax làmb fi mu ne nii boo xoolee ministre bi indi na ay division ñi ànd ak Malick Ngom fii ñi ànd ak eh, Bira Sène fii mu indi dem ba indi ay division ci làmb lan ngay conseil waa làmb surtout ñi nga xamante ne ñuy mbëri ak promoteur wax naa leen ko léegi nii tànk bokku leen ndey bokku leen baay doo leen atteindre muk seen ay objectif booloo leen xajaloo baaxul bu la neexee nga ànd ak Abdou Fall keneen bu ko neexee wànd mais intérêt général bu taxawee simmeeku leen ba set ànd bokk ndey bokk baay défendre intérêt général tant que loolu amul ci lamp, ay jafe-jafe rek la ñuy dund yéen a ngi ni xoolal tey jii ni jongo ma nga naaj bu tàng bi bu amul woon doo ñëw di ci forcer dépense kii caméraman bi noonu kon làmb lu ñu war a gërëm sant la lu ñu war a jàppale la parce que mu ngi jàppale développement bi mu ngi jàppale xale yi mu ngi jàppale sport bi yàlla na yàlla may ñëpp jàmm ñëpp bokk ndey bokk baay ba lamb Euh, liñ ci soxla mu am moy unité parce que tant que amul rek dana jafe trop dal mais duñ dem tam te duñ la laaj ci li nga xamanteni moy le 24 novembre ci diggante Siteu ak modlo ndax xam nga Siteu bu baaxa baaxa baax xam nga modlo bu baaxa baaxa baax lan nga ñuy wax ci le 24 novembre jambar, ak li nga xamanteni moy mooy ak modlo féliciter jambar encore Mansour suma rak joju diko encourager mok moog stafam ak papam parce que papam moo yar. diggandoo Fass euh, muy Modou Lo di Siteu yëpp ku ne xam naa la parce que ku nekk tëgg naa la du benn yoon sax du dëgg ñaari ndaanaan lañ li ma bëgg rek wax mooy lamb pour mu nekk lu éclatant nañ ñaan yàlla CNG bi nga xam ni moom lañ fi teg mu nekk ah CNG bu disponible bu open bu nangu collaboration pour que

doon ay promoteurs yu ndaw man maa war a tëgg samedi 2 novembre ba ma gars yi wooye nag damay ñëw parce que tamit mënoo jël say millions man damaa man man sax maa si gën a dee man mi bàyyi sama liggéey Milan bàyyi sama contrat bàyyi sama lépp ñëw jël samay million investir ak toog xaar sa date lu mu méttee 3 mois 4 mois nga toog di xaar sa date def signature def promotion journaliste bu nekk nga wax mu dem seeti mbëri nga investir régulariser fay stat xam nga joxe reliquats yi def lépp ah nga tok yow ngay deg ñu naan la lamb ji day am ak du am xam nga loolu tamit dafa nek lo xamanteni ni madame la ministre loolu loolu ñun ay ndaw lañ ñun ñoy jeunesse bi yow jeunesse bi ngay wax ñun la ñun ñi ñun promoteur yi ndaw yi yow suñu xaaliss investir ko ndax ndaw ñi xolal man ñima ma ak ñeneen ak ñeneen ñu ñuy tëgg tay ji xolal gaal yi booy dañ doon jël gaal di def ay dégâts ci dëkk bi ñun promoteur yi ba ñëwee teg leen loxo ñuy bëre dafa tun dañuy concentré wu seen lamb jël entraînement daf ko seen métier lepp normal comme bok madame le ministre ñun ay ndaw lan te am na loo xamante ne boo ko defee da ñuy lor ñun promoteur ndaw yi jël suñu million investir ko toog di xaar xam nga am na loo xamante ne sax même bu dee lamb yi sax da nga ko utiliser waat muy am de yàq nga xel mbari bi yàgg parce que mbëri bu ndégee ne day am ak du am dañ lay woo bu noonu waaj 10 dañuy waaj 5 wala 6 te loolu tamit jar naa bàyyi xel quoi lii làmb la ñun promoteurs yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñun axlu làmb lu ñuy bokk bokk nañ mënul dem bàyyi morom ji kon boog madame la ministre ngi lay ñaan si lu mu gën a gaawee rek ñun ñun ndaw yi nga xamante ne ñooy jeunesse bi te yow da la fay teg pour jeunesse bi da la teg pour jeunesse bi bu nekkoon 5 nga yóbbu leen 10 bu nekkoon 10 nga yóbbu leen 20 ñoo ngi leen ñaan demee incha allah lundi na affaire yi génn ku nekk xam fu mu féete lamb yi continuer di leen jaajëfal nag di leen béggewaat di leen jox seen wàccuwaay baax a baax. maanaam bëgguñu circulaire bu benn semaine dañoo bëgg mu tabb kii jiite CNG bi at bi wax. non loolu lañ bëgg loolu ñaan parce que booy xool ay am importance ñoo ne si kanam. ñun bëgguñu ñu ne semaine bi kese ñi dañuy tëgg ak noonu de non non bëgguñu circulaire boobu lu ñu bëgg mooy nga génna ñu définitivement kan mooy jiite CNG ñëpp ne si jàmm promoteur ne si jàmm journaliste yi ne si jàmm mbër yi ne si jàmm madame la ministre affaire bi yàgg na waaw yàgg na depuis boobu ba léegi gaa yaa ngi toog di xaar ba sama xarit sama doomu day bu waroon tëgg démb gis nga làmbam amul nga toog ba une heure une heure et demie muy doog a jot ne làmb ji day am te mbër yi wax na leen ko si guddi gi ni leen làmb mënatula am wax dëgg fa yàlla loolu tamit bàyyi si xel madame la ministre ñun ay jeunes lan ay ndaw lan te ba nga ñëwee da ngaa waroon yokk lamb mais waroo wàññi làmb waaw ñu la day ñaan nag mooy à partir de demain incha allah tegal lu leer si kaw taal bi ñu xam kañ mooy suñu président làmb ji continuer ay arrêté ak deux jours trois jours yëpp dakk ñu ñun ñëpp ne si jàmm waaw jërëjëf. am nga leen Amadou nuyu la. Modou maa ngi lay fay di la ziar maa ngi sant bu baax a baax. waaw ah, mais point de presse li ko waraloon xam nga ko maanaam tey jii làmb la nekk ñu jéenoon benn arrêté ne làmb day arrêté yàlla def ni comme que ay mag am na ñoo xam ne ñu ngi si dem dox tànku jàmm xëy na ba ñu si doxee tànku jàmm am na solution bu jénn mais solution bi jénn mooy le 26 ak le 27 lañ def moo taxoon nag am na ay kilifa yoo xam ne si làmb la nekk ku si mel ñoom Pape Abdou Fall ñoom Fallou njaay doyen yi fi nekk ku si mel ne ñoom Ousin Amalax Ibulaay ñëpp ñëw. ñu woowoon promoteur yëpp pour ñu ñëw taxaw xeex benn xeex bi mais xëy na yàlla suñu borom dogal na ñu bari ñëwuñu xëy na ay gàllankoor la ñu am mais def nañ point de presse bi def déclaration mu wax ministre bi na gaaw ubbi suñu làmb pour mu continuer ba pare tegal ñu ko mu fi war a teg làmb jox ci kanam xëy na loolu moo waraloon point de presse bi daal xëy na ñi si ñëwul daal empêchement la mais ñëpp yëgoon nañ ko mais kenn du ma kenn ndax ñëpp ñëw bokk ndey ñëw bokk bàyyi leen lañu xeex muy làmb jëm si kanam mais en tout cas kàddu fi jëm yëpp rafet na Pa Abdou Fall wax na Fallou Ndiaye wax na ñeneen ak ñeneen wax na mun nañu wax ni benn kàddu la rek di ñaan mu si ministre nañ ubbi làmb ji mu continuer ku fi teg naka fi teg ku indee keneen koo xam ne nag bokku si làmb ñu ànd ak moom liggéey rek loolu kese la mais daal ñun intérêt lamb doom la ñuy wax na gaaw mais xooluñu diw moo fi toog wala keneen moo fi toog encore daal choix bi benn la nañu ubbi làmb ñu continuer taxaw sunu journée mu continuer loolu dong la waaw. mais yaa ngi jëm ci le 6 nga tëgg nga xamante ne mooy fils de Lirou ak ki nga xamante ne mooy Boucher Ketchup Ama Dia nan lay waajal ndax le 6 pare nan ngay waajalee bis bi waaw bis bi mën wax ni pare nan ndax xëy li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko mais nag di félicité sama doomu nday ndax moo jox grand combat bi wax dëgg yàlla lépp lu ci def muy communication def ngeen ko te wax dëgg yàlla liggéey nga si liggéey bu am solo jële nga grand combat bi jële yeen combat yi mun naa wax ni làmb ji am na promotion an ko di xaar le jour ji rek incha allah rabi ñu ñëw mercredi ñëw def lu ñu daan def di ñaan yàlla képp koo la sonnal di la guddi di la bëccëgal nga ñëw accompagner wu bis bi ndax kenn ku ne bisam la am te sama bis bi fonk naa ko am na fu ma ko teg en ka cas daal maa ngi xaal képp kuy promoteur maa ngi lay ñaan nga ñëw accompagner sama bis bi mooy le 6 novembre bu ñu fa jógee nag ñëwaat la 11 janvier si mbay xadaa ak boo yëmbal en tout cas di la wax matu man la ma la waxoon laa lay wax commencement ba léegi yaa ngi si mais daal gis nañ liggéey bi ak yéene bi di ñaan yàlla ñu am si réussite totale daal le 6 incha allah. le promoteur des promoteurs le promoteur des jeunes borom 350 litres, daw def na fi saison bu doy waar def fi saison bu dynamique Mom Ouzin production kon nee la madame le ministre bu xolone ci Ouzin rek kon tay dafa woron tab ki mi tab bu yag yag yag. ndax ki boole na fi boole na fi ay jeune yo xam mbër nga xamantene ne gëjoon leen a dégg si laama sax defaat nañ le retour grâce ak Ouzin mu ngi jëm nak mom tam le 13 waaye bala ñoo jëm ci bobu dañuy waxtane li nga xamantene ne amon na fi ñu tok ba dernier moment badian tamit dañ koy massaw bu baaxa baaxa baax ndax dafa métti badian jeune tailleur la jeune tailleur la bo xamantene dafa yor alalam diko def ci làmb bu ko neexon xalisam boobu mu dem def ci leneen kon tay ki nga xamantene moy badian sa normalement dañ ko wërna a dédommagé parce que métti na torop torop torop torop ken xamul fa la lijjantee xaalis bi ken xamul dako koo leb banque kenn xamul nit moko abal métti na torop badian ñu ngi lay masawaat bu baaxa baaxa baax a baax nuyu nañ la. maa lay fay Matou. di nuyu sa caméraman bi ah di la nuyu bu baax di nuyu waa Tekma TV yëpp vraiment di am kontante ak mbégte ci yéen bu baax a baax a baax. Ouzin lan moo waraloon conférence de presse bi. waa li ko waraloon daanaka sama doom day wax na ko pare Amadia xam nga tey euh, ministre bi dafa defoon benn arrêté pour wane ni làmb dafay arrêté le 23 octobre bon le 23 passé na. li nga xamante ni mooy arrêté bi mu bindoon CNG de lutte daal di sukkandiku ci loolu amuñu droit defar benn activité mais jàppoon nañ avant le 23 dina mën a tabb ki nga xamante ni mooy nouveau président CNG mais amul ñu dem di préparer li nga xamante ni mooy journée li nga xam mooy le 26 ak le 27. dem ba daanaka vendredi presque ay 22 heures administration CNG ñu leen benn finde bu wane ni lamb war na mën a am ñu arrêté lamb yi bi ñu ko arrêté nag promoteur yi jóg xam ni vraiment lii war naa mën a. deñ parce que loo gis ci àdduna continuité la barki dem Ndiaye bi ñu fi jëlee président Macky Sall dañoo xëy liggéey yi war tooguñu naan maanaam defaguñu passation de service muy ñaari président yi dañoo xëy liggéey yi kon tey làmb toll na foo xamante ni même bu bu ñu tabul président CNG bu bees côté administration bi nga xamante ni ñoo yor war la mën a continuer li nga xamante ni mooy programme bi parce que suñu doomu ndey li ko dal neexul parce làmb ku ku ku organiser wul làmb rek mënoo xam coono yi ci nekk parce que Badiane mënul jël alalam fay mbëri ba mbëri ci guddi gi ñu def seen i regroupement ba xëy togg seen i regroupement ñuy door a wane ni làmb ji ah, ñu ngi koy door a autorisé du yoon mais est-ce que tey ñi nga xamante ni defoon nañ loolu dinañ ko dédommagé duñ ko déjantu bu bëggee tëggaat làmb ji amaat na beneen dépense bu ko waraat ci mbëri yi kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la ñuy wax ni nag xëy na nouveau ministre bi xëy na dafa comprendre gul ni ni làmb ji di doxee mais na laajte te xool lii mu bañ a amati man damay wax ni dañu bind dañu autoriser beneen circulaire bi génn dañu autoriser ni le 26 le 27 autoriser nañ làmb nañ fi jógee nag autoriser làmb ji ba le 31 juillet parce que wax dañ koy parce que ñun ñi dañoo jël suñu xaaj def ko ci ay avance man maa nga quatre combats yu mu war a tëgg jël suñu alal bi ñu am as néew dajale ko jox ko ay sénégalais ku si nekk jël yóbbu sa kër di préparer sa bés dama war a tëgg la 13 dama war a tëgg la la la 4 dama war a tëgg la 28 combat yooyu yëpp kenn ku ci nekk maanaam mën naa la wax 60 lutteurs ku nekk yaa ngi ak sa avance toog di xaar kon li ñuy wax ministre bi na tab li muy tabb bu ko tabul na jël làmb ji autorisé ko fii ba le 31 juillet administration CNG bi continuer li nga xamante ni mooy làmb ji li ñu dal métti na trop te fu mu toll nii fii làmb yegg ni waru foon yegg Pape Abdou Fall de grâce dañ koy remercier di remercier Dieye ak képp kuy promoteur ci làmb ji ba ci Abdou njaay li ñu ci daj ak li ñu ci wax maanaam intérêt làmb kese nañ doon xool xooluñu intérêt seen poche wala la parce que Pape Abdou Fall mi ko xool mu taal otom bàyyi li muy def ñëw ba fii nangoo boot ay rakam toog di wax pour ministre bi xool li muy def maanaam xam na ni làmb njëriñ kase la kon loolu vraiment ñi ngi koy ñi ngi lancé appel boobu pour ministre bi nañu fi tegal ki mu fi war a teg comme nee na jël na choix ba pare na teg ki mu teg ci semaine bii di ñëw te xam ni làmb làmb dafa dafa war a am samedi na am dimanche ba pare am le 6 te passage ma ci gërëm suma doomu ndey wax naa ko moom bi mu ñëwee ci làmb yàlla dogal na ni grand combat bi maa ko buggoon mën na ko demal nga jël ba pare leneen li si garaaw dama ko jox leneen lu gars yi xamul mooy maa ne ko yaay ibi mercredi saison bi <laughs> mooy ibi mercredi yi mercredi yi boo koy ibi le 6 di wax waa làmb yëpp nag sama doomu ndey Amadia mooy ibbi la 6 ci diggante ah, bu 2 ak ki nga xamante ni mooy fils de Lirou amaja làmbam ci ñi retouram ci làmb man sas la ci man wax naa ko ay nit yow xam nga li ma lay wax parce que sama làmb sama 15 journée yi daaw yëpp da ciy sonn maanaam moo may njëkk cee saat bi man moo fi mujj cee saat bi kon tey bu ñëwee di organiser làmb man sas la xam ne vraiment lépp lu ma mën pour jàppale ko pour moom réussite incha allahu rabbi dinañ ko def bu ñëwee le 6 nag. daf may alaat affaire yi ñu ñëwaat le treize prochaine yaa ngi dégg parce que xo imaginel xoolal le treize ñi ngi ñëw ci papalaay ak ki nga xamante ne mooy tafaa xarañ man chaque jour rek ñi nga xamante ni promoteur dañ leen a bàyyi bëgg leen a tegee ne le man dama leen di loxoot na leen ci làmb ngeen bokk parce que projet 300 lutteurs Ousin mi ngi tudd ci la ñu bokk papalaay gëj na ñëw bàyyil ba la 13 bu treize nga gis lu doy war xalé keur massar bu ñëwé fi nga gis lu doy war muy Papa lay ak ki xam moy Tafa Xarañ vraiment nak ñu tuddé ko nak suñu benn jigen ñu koy madame cham nek fi jiite li nga xam moy tête coalition buntu bi di dem élection législative may wax wa Pikine yépp ak wa akhlu lamb yépp nañu jappalé suñu jigen yoy té xamni tay tey mu xam ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñoo gën ci assemblée nationale madame cham bi na waa Pikine ak banlieue bi xam ni moo gën ci assemblée nationale pour waa pikin nañ ko déglu nañ ko seetaan bu nekk madame Thiam Julde gisee yaa ngi dégg nekk tedd de liste départementale bu bu bu bi na gars yi xàmmee bu ñëwee fii le treize waaw bu ñëwee fii le treize ñëpp dinañ xam ni tête de baa ngi nii jàmbaar jaa ngi nii gaynde gaa ngi nii kontaan ci yow yow dem jëli ko sax moon kumba am ndey kumba amul ndey mhm. bon loolu itam ak ku fi mën a ñëw rek na na na na nañu bàyyi xel ci loolu mhm. parce que tamit bu ñu jëlee ni lii promoteur yi ñoo ko moom promoteur yëpp si bokk yam dëgg la doole yamul ku nekk fi sa doole toll ku nekk ak fi sa doole toll fay fay la mm-hmm. fay mm-hmm. nañ jënd nañ licence ñu ngi organiser mm-hmm. bu ñu ñëwee def demande dañ leen war a jàppale waaw kon ñu ngi interpellé président bi nga xam ne moom moo fi war a toog ku ci mel ni ñun ñii man mii sama xam nga dossier foofu dem naa ba nu mu tudd microsène ñu ne ma bind nañ sa tur mi ngi ñëw mais ñëw na depuis sama combat Modou Anta Alioune Seye ba xam nga loolu yàgg na ëpp na at mhm. ba léegi mënuñoo mënuñoo wax dara lu leer mhm. boo ñëwee ñu la noo xaaral maa ngi ci yow maa ci ba tey di lii dal suñu kaw mhm. tey jii jàppoon nañ ni suñu jamteeri général Malika bi di ñu am dina am lu ñu fonds bi jox mais ba tey nii quoi nañ ñu dimbali ministre bi nag moom ah na bàyyi làmb ji mu dem parce que làmb facteur de développement la tey ji li muy li muy li muy jariñ fii ci Sénégal parce que jeunesse bi ñu baree baree baree bari làmb ji moo tax ñu toog fii mm-hmm. kon nag na téye jeunesse bi mm-hmm. parce que employé di xam nga dafa créer employé bu mm-hmm. bu bari tey jii jour làmb tey jii boo ñëwoon ci bunt bi rek nii Mbéyane production di tëggee da ngay gis jaaykat yi dañ fee baree bare dañuy ñëw fees dell xam nga journaliste yi dañ ciy liggéey mbër yi di si liggéey xam nga làmb ji ñi ciy liggéey dafa bari bon kon warul toog këram rek ne noonu lañ arrêté lamb fii ak quelques jour nangam nangam bind ay circulaire circulaire bi mu bind le 26 le 27 moo ci nekk na bàyyi lamb ji ñi doxal mun nañu kii la yomb na kii moo nekk ci CNG bi ak ku mu mën a doon ñun amuñu problème mu ku fi nekk mhm. mais problème bi ñu am mooy ki fu mën a toog nag gesu lamb jox lamb cër mhm. xam nga dooleel gaa yëpp mais nag du caagee nii da ngay toog fële rek di wax ay non nañ arrêté lamb bo mo def li ba paré bo mm. té li ngay def c'est facile pour nga def ko man dal gisuma raison bu wara tax ñu tiyé lamb gisuma raison bu tax ñu wara tiyé lamb amateur lan ngeen nara indil wa xam nga jandeer production mom mom day ñëwaat comme ni dal ñëwé rek mm. xam nga biñ ñëwé ci lamb yagul ga ay promoteur yu ndaw lañ wayé tundu jandeer yépp ñi ngi ñuy jappalé ñi ngi and ak ñun top suñu ginaaw mm. ñu leen di gëna wo nak ci le 3 novembre xam naa ni jam ci bu ñëwé général malika ñëw <laughs> ah Mm, forte mobilisation dina dina dina dina am arène national te it ku bëgg seetaan làmb rek mandi ko mm. xam naa naan ñaari mbër yooyu moom bu arbitre soufflé génn seen diggante ba ñu dagg ngi di nga mandi làmb incha bu soobee yàlla uh-huh. ñuy jox ñëpp rendez-vous di ci tatagal buzz aussi moom mi nga xam ne moom moo porté grand combat bi xam di ko jaajëfal lu bëree bëri di ko ñaanal bésam bi yàlla na sedd guy mm. yàlla wasal ci barke xam nga te mu jikkoo ak Abdou Diouf moom mi nga xam ne tamit mooy am na combat spécial si diggante Papouy ak caatu caatu waalo mhm. moom it xam nga ñu ngi koy jaajëfal lu bare bari parce que tamit xam nga social bi muy def ci euh, euh, social bi muy def ci tund jandeer euh, dafa jéggi dayo moo tax tey ji ñu jël benn bés dara jaale ko di jaajëfal aussi Catalina mi nga xam ne tey ji lépp moom la parce que bi ñu bi ñu bi ñu démarré ba léegi moom moo nekk di ñu di ñu di ñu accompagner ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak di dibiteurs yi Uba tamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que moom it ñëw na pour jàppale Jantal production si événement bi ah. ñu koy jaajëfal di wax tamit ñu consommer produit am Catalina nag moom yàlla na ko yàlla fay dañ koy bàyyi ak yàlla borom King borom Tampico Harmonia moom moo dooleel lamb tey promoteurs yi nga xam ni moom la ñu jàppee ay promoteurs yu ndaw ba ñu suufee leen moom ñoom lay dimbali toujours ñooñ lay jàppale kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax di wax ñu consommer produit am bu baax a baax a baax a baax a baax parce que mi ngi joué ci jeunesse bi lu jéggi dayoo macha allah. Hmm.